internautes yi ñu ngi leen di euh, nuyu di leen euh, dalal jàmm ci euh, seen émission lava voix du succès yoonu ndam am toujours mbégte jàkkaarloo ak yéen ma am tey beneen mbégte man dalal fii jigéen bu am maanaa jigéen bu am solo ci Sénégal am itam jaar-jaar bu jara waxtaanee professeur am Amsatou Sow Sidibé nekk première femme ci Sénégal agrégée en sciences juridiques et politiques maanaam moo njëkk a doon ki ñu agrégé ci wàllu science juridique lu jëm ci wàllu yoon mais aussi ci wàllu politique professeur Amsatou Sow Sidibé également Camon mooy jigéen bi njëkk a samp ndëndam ci élection présidentielle ci Sénégal am taxawaay bu am solo ci dox jàmm ak di ko wax waaye itam wàllu élection jaar-jaaram bu am solo boobu euh, may ko ndam tey ba bu ne dama ne ñëpp déglu ko mu bokk aussi ci ñu am taxawaay bu ràññeeku ci réew mi moo waral ñu dalal ko ci seen émission la voie du succès yoonu ndam professeur maa ngi lay nuyu di la sargal dila jox sa wàccuwaay. yow dañ la war a encourager la yaa ngi def liggéey bu rafet wax dëgg yàlla yow référence nga ci jigéen yi mais di nga ma may bu ma nuyoo ñi ñuy seetaan yépp ak askan wi quand même euh, ma wax ci li xew le premier mars nga xam ni mois de la femme la le premier mars ñu jël benn jigéen benn mm-hmm. soxna nekk euh, dans la communication journaliste mm-hmm. euh, def ko violence yoo xam ni yaakaaroon nañu ni kenn ñemeetu ko def ci biir réew mi te fekk na il de cela quelque jours amoon na beneen soxna bu nekk dans la communication ab sa Eliman Anne bi nekk Seneweb moom itamit euh, ñu ñu ñu torturer ko dóor ko essayer ko toroxal donc ci euh, euh, huit mois de mars bi ñu nekk yooyu day nekk ay phénomène ay situation yoo xam ne dañ ko déplorer mm-hmm. daf ñu naqar yi tey defe naa ni jigéen ñi am na yu waaye suñuy càmmiñ borom kër yi doomi góor yi ñoom ñëpp am nañ luñ naqar yi mm-hmm. parce que defoon nañu lii dootul am defoon nañu ni dinañu gën a wekk jigéen mm-hmm. parce que jigéen yàlla ko sàkk fonk ko lool nag hmm? bëgg ñu jox ko ay àqam ak ay yelleefam Euh, ñu koy essayé toroxal nag loolu def naa ni suñu boroom du ko nangu mukk ci àddina te kenn rafet rafetlu ko itam kenn rafetlu ko kenn rafetlu ko mhm. ñu di ko ñaanal yàlla fëgg boppam euh, moom mooy mun a nduur fay te mu bañ a amati ndax itam nag euh, réew mi lu mel ni xaju fi professeur waaw ñun ñëpp ñoo bokk koo fi gaañ ah. yaa koy faj dëgg fi faat itam boo maytuwul yaa koy dëjal alors professeur Amsatou Sow Sidibé tey yow la ñu bëgg waxtaanee mm. ndax sa jaar-jaar bu am solo euh, mu doon jaar-jaar bu mën a inspiré ñeneen jigéen yoo xam ne xëy na jàpp nañu ne mënta ne wala am ñu nekk ci yoon bi nga mm. xam ne jaar nga ci ba yegg si macha allah muy la voie du succès mu metti xëy na ñu ne euh, ñoom euh, daal dañoo nar a wàcc wala ñu nekk di am jiixi jaaxam yéen ñi nga mm-hmm. xam ne nag jaar ngeen ci yoonu ndam googu ba tey ngeen toll fi ngeen toll. Mm-hmm. dafay jaadu ñu teg leen ngeen wax fa ngeen jaar pakk-pakk yi jafe-jafe yi te ba léegi bàyyeegoo macha allah yàlla nag fi yàgg lool te mu ànd ak wér. ndax am nga njëriñ ci réew mi. alors ni ma ko waxee sànq ci présentation bi yow yaay jigéen ji njëkk a ji ñu njëkk agrégé en science politique ak euh, wàllu justice ci réew mi science juridique euh, lan moo indi nga topp yoon boobu njàng moomu lan moo la xiirtal ci nga def waaw man defe naa ni man éducation bi ma samay waajur jox def na ci lu bare bare bare bare parce que suñuy waajur dañ doon wax ni jigéen ngeen mais góor ak jigéen yëpp benn la góor baax na jigéen baax góor baax na jigéen baax na ñun loolu la ñu mës di wax di ñu pousser di di ci jàpp parce que yombul woon de man toujours dama naan fa ma jaar ku fa jaar tax ban euh, bi ma nekkee école primaire euh, man aayu moo woon de hmm. déedéet bokkoo woon ci meilleur élève yi non aayu moo woon primaire ndax xam nga lu tax sañse rek laa bëggoon ah nekk xale bu tuuti bëgg ñu may defar coiffure rafet a rafet a rafet <laughs> waaw semaine bu nekk ma ni nañ ma jëndal ay dàll yu bees <laughs> alors bi ma amee entrée en sixième ma dem lycée bi ma waree dem lycée ma jël sama karaw gi défrisé ko ba mu melax dem parce que gaar ba lañ dëkkoon fii grand théâtre nekk tey wuti ay fil d'affaire boucler sama karaw gi bigg di ko fiitu parce que ëllëg sa dama waroon a dem école premier jour bi xam nga dañuy sañse ñu jëndal ma robe yu rafet a rafet a dimanche bi bi ma boucler ba fiitu nag di xaar sama papa romb ma daan na sama yaay waaw xale bi lu mu def ci biir karawam gi gisuma ko dafa musóoru lan la <laughs> sama yaay ne ko moom day défrisé na karaw gi boucler na ko ndax nee na ëllëg mooy rentrée de classes. te dafa am entrée en sixième. te dafa am entrée en sixième. sama papa ne ko aha génneel ma boucle yi demal yóbbu ko ci robinet bi ñu raxasal ko karaw gi ba mu set nga yóbbu ko ci may caam ndeysaan mu laxas ko wala mu léttu ko alors loolu dafa nekkoon déclic ci man parce que bi loolu xewee man ma toog ñu létt ma ma dem so ma ni ah dem na lycée waaye jàng moo ma foore yóbbu ba ma demee li may toog ci ginnaaw di waxtaan ak xale yi nga xam ni nammante woon ngeen. comme na nga daan def primaire. comme dama daan rek dama toog ci kalam ci kalamu professeur yi di déglu bu baax. di jàng bu baax di am nag ay ay tableau d'honneur ba nga xam ni fin d'année dama daan am prix de tableau d'honneur nga xam ni ñii nga xam ñoo gën a góorlu ñoom lañ ko daan jox man daal sama départ foofu la. d'accord ci sa yooyu. kaddu googu ak jëf jooju ñu jël sama karaw gi daan ni kii demul pour jàngi kii dafa def pour pour sañ-sañ. Mm. ça m'a été un déclic foofu laa commencé. bëgg di jàng bëgg di am ay prix bëgg parce que ku bëggoon waaw góor laa nag sama papa bu ñëwee maa ngi woon lycée mhm. fekk ma quatre heures cinq heures du matin ma toog ci kaw lal bi di jàng day ñëw ubbi bunt bi gis ma kontaan ubaat bunt bi le lendemain mu ne ma waaw góor boo ma ne waaw góor rek <laughs> ma yokk <laughs> mm. donc noonu laa def ba am euh, sama baccalauréat dem faculté de droit université bu Dakar parce que noonu lañ ko tuddee woon avant. lu tax nga tànn lool tànnoo leneen. ah lu tax ma tànn droit xam nga lu tax ma tànn droit. Hmm. su ma la ko waxee da ngay reede. dama am benn xarit. bu tudd Mati Diaw sama xarit sama ami d'enfance la. ñoo defandoo lycée ensemble. moom dafa sëyoon ak magistrat jëkkër ji magistrat la woon mu teel a sëy su ma demee seeti ko l'après-midi damay fekk boroom këram ca kër ga ma ni ah ma ne ko waaw moom du dem liggéey mu ne ma magistrat la suba gi rek lay dem liggéey ma ni ko lool neex na di <laughs> aka neex suba rek lay liggéey du liggéey ngoon kon boog man droit lay dem jàngi. loolu la <laughs> bi ma duggee ci droit bi nag amatuma nelaw amatuma fo. njàng mi yombul. njàng mi moom euh, metti lool. bëri bëri jafe. te bëgg nag réussir. waaw ma def droit bon góorgóorlu nag dama daan góorgóorlu waaw université jafe-jafe foofu ci cursus bi non bi may ñëw dama ni man nit ñi ñëw du ñu bari dañuy du ñu jàll kon boog man duma jàll mais mani ma jàll wala ma bañ jàll naa def li ma li ma war li ma war def mooy jàng dama daan jàng nag waaw bibliothèque maa fa daan jëkk loolu dama daan békk naan man de maa jëkk dugg ci biir bibliothèque bi le matin huit heures moins quart te damay toog jàng jàng jàng ba waxtu tëj bu ñëpp génnee ma ni ah defe naa kenn nekkatu fi de ma kon ba maa ngay génn. maa ko tijji maa ko tëj. maa ko tijji maa ko tëj. sama camarade yi ndeysaan ah ñoom Mansour Taal ak. Euh, ñoom seen naan ma kii carriériste rek kii kii faalewul kenn jàng rek mais dama daan jàng parce que dama bëggoon réussir bëgguma woon perte temps waaw dama ni université dama fa ñëw pour jàng mais naa jàng su ma amee moment pour ma noppaliku ma noppaliku su ma waree dem euh, feet wala dara ma mën ko def mais waxtu jàng daaw ma ko fowe daaw ma ko fay léegi donc ma am euh, sama licence à l'époque licence la woon moo doon équivalent master 2 léegi bi ma amee master 2 gis nga li ma bëggoon mooy def magistrature loolu laa la doon bëgg a laaj magistrat nga bëggoon nekk lu tax nga mujjee ci jàngale bi mais yàlla mooy tracé yoon gis nga bi ñu amee bi ñu waree dem magistrature ñun ci ñun suñu promotion 1977 la ñu ubbee ENAM mu nekk concours ubbi woon na sax mais da ngeen daan jàll ci ñun la ne ah ñu ngi xaw a bëgg sakkan barewuñu woon noonu sax léegi ku bëgg dugg da def concours loolu ban année la woon 77 alors bi ñu euh, defee loolu xale yi ne ñoom dañuy grève du fi daal kenn du leen defal concours dañuy dugg directement ENAM ni ñeneen ñi duggee <laughs> waaw comme ñeneen ñi alors man maa ngi woon ci amphithéâtre bi def naa amphi trois la woon fac de droit ñu joxe sujet yi man dama mës di bëgg nag sujet yooyu nekk sur les successions d'ailleurs sama thèse si loolu la porté woon sujet bi neex ci man lool les successions de l'enfant naturel en droit sénégalais neex lool hmm. ma commencé bind maa ngi naan man de li chance la alors bi ma commencé bind ñeneen ñi ne ma eh solidarité ñëpp génn nañu yow il faut nga génn xam nga rekk kii rek jom. te boobu jekku nga sujet bi. ah te neexoon. amoon na euh, un magistrat boo xam ne moo nekkoon ci salle bi di surveiller euh, xawma lu tax euh, mu génn nekk sama sama xel mais yal na ko yàlla xare àjjana. mu ne ma toogal. waaye toogal yow même boo bindee sa tur rek sa kon di nga jàll ma xool ko xool ña ci biti ma ni jom génnal ca laa génn dafuma parce que sama moroom yëpp dañu génnoon bon après nag euh, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un koo xam machallah il est extraordinaire professeur Ibrahima Fall parce que moom dafa xamoon étudiants yi xam ñan ñoo ci amoon les meilleures notes dafa ni ma yow dama lay jox bourse nga dem France jàngi ci la ma joxee bourse ma dem université Paris 2 Panthéon Sorbonne commencé fa toog fa ñetti at ma ni man duma toog fenn ba yàgg fa maa ngi ñibbi sama réew bi ma ñibbisee ma am post assistant continuer nag di def sama thèse di dem France di dellu si. boobu magistrature bi génn na sa xel wala mi ngi ci woon ba tey. mais génnoon na ci sama xel. regretté woo génn bi nga génnoon. non fekk ji sa moroom yi. ba ma génnee metti woon na ma mais man na dama am benn jikko man kersa ak jom. moo la sonal. daf ma sonal kersa ak jom daf ma sonal lool lool parce que xoolal ki doon surveiller ne ma yow sa tur rek soo ko bindee benn français da ngay jàll. maanaam bul boycotté rek yow. mais lu dul sa wërsëg doo ko lekk mais réccuuma parce que bon dem naa euh, dellu si nekk assistante à la fac. di def sama thèse dem ak a si entre Dakar ak Paris 2 université Paris 2 Panthéon Sorbonne soutenir sama thèse en 1987 sur le pluralisme juridique en Afrique c'est-à-dire que le fait que Afrique xam nga ak islam bi fi nekkoon ak euh, colonisation bi dafa indi ay ay ay ay droit yu bare droit musulman droit français droit coutumier ah cetera loolu phénomène boobu la doon étudier naka dans un pays comme le Sénégal par exemple code de la famille bi yooyu yëpp nekk ci mais naka lañ koy appliquer voilà moo doon thèse bi bi ma defee thèse bi tubaab yi kontaan lool te man li ma ci jaaxal mooy dama doon wax ni bu ma soutenir thèse bi ni ñu def Cheikh Anta noonu lañ may def xam nga lu tax hmm. damay dégg léegi nit ñi di wax naan dellu siwaat ci sa cosaan man dama doon défendre ci thèse boobu ne ñun ñun dañu am ay valeur ñun dañu am droit boo xam ni suñuy maam yi ñoo ko fi indi te waroon nañ ko mën a jëfandikoo hmm. mais dañu koy sofanteel di ko ñàkkal fayda ma ci ma ma ma développé nag côté boobu bi ma demee di soutenir ma ni man nii duñ ma jox lu baax mention bu baax mais dañ ma jox mention bi ëpp ba pare ne ma yow sa thèse dañ koy publier ci laa ko publier à la LGDJ euh, en France donc di ci wax affaire u sañuy aada wax ci affaire droit musulman wax ci droit bi jógee France alors man ci biir d'ailleurs la découvrir ni hmm. gis nga droit français hmm. sorewul droit musulman ak coutumier am nañu naan am na ci foo xam ne ci lañu inspiré wu waaw Napoléon moo def code civil français en 1804 moom Égypte la dem ba mu demee Égypte alxuraanul karim le lire génn ci ay mbir alors ce qui fait suñu droit euh, musulman bi ak coutume yi aada yi ak français bi yu bari daf ko niiru xam nga lu tax hmm. waaye nit benn la universalité hmm. nit mu ñuul mu weex nit la hmm. dafa am loo xam ne yàlla daf ko ko sédd ñoo ko bokk donc euh, ci laa soutenir donc sama thèse de doctorat d'État 1987 mm. en juin 1987 ma continuer di jàngale université Cheikh Anta de Dakar jël surtout le cours de première année de droit civil remplacé ku ñuy wax Lamine Sidimé qui est en en Guinée maintenant dellu na mm. continuer nag. dégg naa sa ndoxteelu jàngale yombul woon parce que xale nga woon. man waaw xale laa woon ñëw ca étudiant ya booy wax coow li ne kur <laughs> mais baat bi suufe comme nii xaw a sedd xaaral ma ñëw foofu ah, am na ku nekkoon sa étudiant ma ñëw foofu ah. am na lu ma fàtte sama cursus ala avant ma dem école tubaab bi sama papa daf ma yóbbu ci daara famille kan bi nekk rue Blanchot fa dooree di jàng alxuraan di oh. ba ma pare ba wàcc nga wala wàcc ma jàngoon naa ba sore de. ok jàngoon naa ba sore léegi euh, bi ma duggee école tubaab dama doon continuer ndax suñu kër suñu papa daf ñu doon indil benn oustaz mu ñuy jàngal mercredi yi vacances yi et cetera donc bi may jàngale nga ma laaj. université say début ak étudiants yi sama début sama début maak étudiants yi ñoo niroo woon. yéen a tolloo woon. waaw jeune laa woon di sol ay eh, booy doole yooyu eh, ak pantalon dagg sama karaw gi nag à mm. mm-hmm. la wala afro wala kii nekk niroog ñoom daal mm-hmm, mm-hmm. étudiants yi bare sa ñoom a magoon waaye eh? man dafa am lu ma yàlla séddee woon xam nga bi may ñëwee mm. surtout étudiante yi liñ daan wax mooy mais kii lu mu ñuy jaay lu amul su ma ñëwee dangay gis ni leen ne na le xeelu wala yu dem na kii daal duñu jaay lu amul kii daal suñu moroom la <laughs> bon il fallait que nag nga imposé waaw il fallait que courant bi jàll man bi ma ñëwee bu ñuy def loolu man damay dalal seen xel dama leen di wan ni man du affaire mag walla ndaw dañuy ñëw sottante xalaat parce que gis na étudiant bi kenn waru ko xeeb yow da ngay ñëw ak sax xam-xam mais ñoom am na benn xam-xam bu ñu am te dañu am euh, dañuy réfléchir gis nga ku mel ne maître toujours dam xam naa ni bu may dégg bu may déglu dina ci kii maître Ndeye Fatou Touré mm. dama ko yore woon def naa troisième année des naa ko man man ñi ma jàngalul fii ci Sénégal barewul de ñi def droit hmm. ah oui pour la plupart sama loxo la ñu jaar léegi Ndeye Fatou Touré day ñëw préparer couram poser ay questions ba tey nag noonu la mel elle est intelligente car ah j'ai beaucoup de sympathie et d'estime ndeysaan pour elle di poser question yu xóot yoo xam ni kan xamul lan la <laughs> mais donc euh, voilà hmm. loolu dafa tax ba sama diggante ak étudiants yi ratax ratax dama leen mettre à l'aise waaw bu ma ñëwee dañ daan kontaan ñi jigéen ñu kontaan parce que xam nañu ni dañ fi nekk rek pour sottante xalaat man am na lu ma xam mais ñoom am na lu bari lañ ma mën a indil mhm. ci lañu commencé nag ndeysaan ba tey ji ni ñu may woowee euh, yaay booy di ma woowee bàjjan ah, ma delloo leen ko parce que man boo tooñee étudiant tooñ nga ma. Mm-hmm. ah waaw seen ah, part à part maître ñan nga yoroon ci wàllu droit di leen jàngal te tey ñu doon personnalité on a besoin quand même de savoir ñi nga xam ne ci loxo professeur Amsatou Sow Sidibé lañ jaar. waaw gis nga agrégé yi nekk nii yépp mm. la plupart nekk fac de droit wala dem université de Saint-Louis wala dem dans les pays africains euh, ñi ci ëpp. Euh, sama loxo lañu jaar nekk ay agrégé ñoom ñoom euh, Moussa ñoom non euh, maître Moussa Diop sama étudiant la woon aussi waa sama étudiant la woon euh, ñoom Diatara ministre ñoom maître Abdoulaye Tine il y eu beaucoup de ministres aussi Ismaïla Madior Fall. jàngal nga ko. waaw euh, kii nu mu tuddati waaye euh, kii maître Youm. maître Omar Youm eh, euh, kii nu kii yore naa ko tuuti bi may soog a ñëw nekk assistant Souleymane Ndéné Ndiaye. Ah. waaw ak xëy na Ousmane Ngom yore naa ko tuuti c'est pas très sûr mm. mais la plupart des des cadres jaar nañ sama loxo xam lu tax. Hmm. man dama fa toog lu yàgg presque quarante ans. université université bi ma paree bi ma soutenir hmm. en juin quatre vingt maa ngi am sama agrégation en mille neuf cent quatre-vingt-onze quatre vingt am sama agrégation c'est ça hmm. quatre-vingt-onze je pense c'était en entre 91 et 93 donc il faut que je vérifie ma mhm. euh, def sama agrégation c'est dans le en 1993 93 hein mhm. dans le CAMES au mhm, CAMES système CAMES et malgache voilà l'enseignement supérieur maa ngi ko amee sax au Bénin alors c'était en après continuer naa même ay postes yi ma daan jox yi ma daan parce que évidemment Euh, ba euh, jigéen yi ñëwoon à un certain niveau euh, d'études barewuñu fi woon donc évidemment gouvernement yi dañ ñu daan soxla hmm. mais man li ma doon wax toujours mooy dama bëgg wéer sama àlluwa d'abord avant may nangu un un poste de ministre waaw donc j'ai fait l'agrégation Et puis après, euh, j'ai été titularisée, parce que au niveau du CAMES, mm -hmm. le maximum, moi, professeur titulaire. Donc, je suis professeur titulaire. Mm. Continuer là, de classe exceptionnelle, parce que ça, c'est ça c'est au niveau de l'université. Mm. J'ai continué, j'ai fait des travaux, d'autres travaux. Mm-hmm. Et voilà, donc, oui, nous sommes à l'eau. Machallah. cursus, Bobo Mm. lan nga ci gis comme pakk-pakk est que am na bés mu metti ba nga xàddi est-ce que am nga loo ci regretter est-ce que am nga loo ci dundu lu metti yoo damay sant yàlla euh, yombul woon parce que man quand même man j'étais mariée di hmm? bi may def euh, sama thèse maa ngi mariée en ci la ci la mariée 80, 82 je pense oui 82. ci la mariée donc euh, xam nga rek créer euh, fonder euh, une famille avec des enfants euh, bon mais mais ngi dépendre ci sa ak sa famille sa famille naka leen la jàppale ah naka leen la jàppale c'est important c'était pas facile du tout c'était pas facile parce que souvent dama daan jël sama bébé teg fii di bind <laughs> su waree nàmp ma nàmpal tegaat mm. xale bu seen yaram naqadee bon ma jaxasoo euh, amoon naa euh, moment boo xam sama dama amoon doom bu amoon quelques difficultés ñu war koon euh, garder en observation à l'hôpital dama daan am cours neuf heures du matin huit heures et demie ma dem à l'amphi jàngale euh, jàngale de neuf à dix heures demaat hôpital nekk xale bi pendant quelques jours bon euh, mais yooyu yëpp sant yàlla la parce que addina moo demee noonu xam nga man su ma toogee defuma dara damay jaaxle man il faut que may liggéey. si loo nekk. il faut que ma ma liggéey surtout il faut que ma ma nekk di di lijjanti di liggéey di di mener des activités parce que pour man dama war a am njariñ loolu mooy sama xëy na loolu mooy sama coono nag loolooy sama coono moo tax buñ ma naan ne ndax da nga retraité mañ leen bu leen neexee au niveau de l'université day am age boo xam ne après il faut que nga bàyyi les plus jeunes ñu ñëw mm-hmm. mais man retraité de type nouveau gis nga man damay yaakaar ni maa ngi soog a juddu. Ah waaw. Fatou noonu noonu lay fonctionné te damay yaakaar ni xëy na sa Fatou moom gis nga man c'est mon esprit waaw man sama esprit la la la def mu nekk esprit boo xam ni dafa war a di yëngatu di man l'âge l'âge âge limité la déedéet damay fàtte sama âge donc man efficacité contribution participation utilité njariñ nekk nekk ko am njariñ pour mm-hmm. askanam mm-hmm. voilà sànq ba tey maa ngi wax nag. noonu la yow yaa war a wax tey ñun dañ lay déglu <laughs> jëriñu ci sa jaar-jaar alors nga am mm-hmm. sa agrégation en sciences euh, et politiques. waaw ba euh, sa alluwa. comme ni ko waxee. ci nga doog a nangu ay post waaw nga njëkk jël comme bon euh, après l'agrégation dama nekk directrice des études de l'Institut des droits de l'homme et de la paix institut d'université la Afrique moo ko moom pour pour seet naka la ñuy tëralee ak ak yelleefu doomu aadama ci biir Afrique parce que dafa am ce qu'on appelle la charte africaine des droits de l'homme et des peuples et puis le professeur Bakary Traoré ndeysaan Eh, yan yàlla yokk leeram moom moo moo demoon Addis Abeba ci ci bi ñuy defar charte africaine défendre ne il faut ñu am benn institut boo xam dañuy jàngale ak ak yelleefu doomu aadama mm. ak la paix mais muy lu am solo mu nekk la premier directeur mm. deuxième directeur bi di professeur El Hadj Mbodj après man ma nekk ma ma ma topp ci mais gis nga loolu institut boobu tey dañ ko soxla ba nga xam ni torop sax parce que dafa mel ne Afrique dafa am yu ñuy fàtte dañuy fàtte démocratie mooy lan état de droit mooy lan ak ak yelleefu doomu aadama mooy lan jàmm la mooy lan stabilité maanaam dëkk ba ne tekk yi bañ faay di jolli dañu fàtte yooyu moo tax yaa ngi question bi ma wax la institut des droits de l'homme et de la dama bëgg institut des droits de l'homme et de la jóg temps yi suñu réew daf ko soxla réew mi dafa yëngatu mm-hmm. bu ñu yëngalul ñoom affaire dugal ci xelu nit ñi ni ak yelleef am na démocratie am na sécurité war am jàmm la paix war na am dama donc euh, loolu ma nekk directrice des études pendant dix ans je crois que quatre-vingt-treize bi may jógee agrégation la am boobu poste 2003 ma nekk directrice générale bi maanaam ma nekkoon directrice su institut des droits de l'homme et de la paix ba 2013 parce que 2013 dañ ma nommé woon euh, Macky Sall moo ma nommé woon ministre conseiller Conseil. à la présidence de la République mm-hmm. donc ñaari poste yooyu daal euh, gën euh, euh, kii mais bon am na ay yu ma nekkoon yu ma nekk après ay yu ma dénk ci mbirum ak ci mbirum euh, au plan mondial la ah, hmm? Euh, par par exemple académie internationale boobu diplomatique mm. pour ak yelleefu doomu aadama ak jàmm dans la paix bon yàggul noonu biñ ma ko mais bëgg naa ko suqali bu baax ci Afrique mm. surtout ci Sénégal parce que tey dañu ko soxla soxla soxla mm. dugal ci xelu nit ñi mais bu ma nee nit ñi waxuma ñi nekk nii rek di dem nii hmm. ñi nekk poste de responsabilité yi d'abord instance yi waaw d'abord ñoom nañu dugal ci seen bopp àq ak doomu aadama nañu dugal ci seen bopp stabilité la paix nañu dugal ci seen bopp la démocratie xam nga loolu ñoom buñ ko ci dugalee seen bopp ña nekk ca suuf dañ koy nang mais tant que dugaluñ ko ñoom seen bopp ñette suuf mhm. duñu ko nangu donc euh, globalement bon y a eu d'autres postes mais bon yooyu ñoo la gën a marqué euh, yooyu yooyu ñoom waaw ñoo ñoo gën a marqué comme euh, comme que mooy sa premier poste mais euh, bi nga nekkee ministre conseil bu président Macky Sall aussi marqué na la waaw waaw marqué na ma la parce que xam nga di xam lu xew dans les instances décisionnelles dafa am solo xam nga da ngay jàng mais après pour tëral ko mettre ko en pratique day baax nga nekk ci yenn kuréel yi di xam naka la yëfi di demee loolu mooy tax nga am doole mm. pour man mën a yow ci sa bopp te yenn responsabilité yi kon bokk am na am na solo yooyu mm. poste bon évidemment du post yomb parce que ay post politique la boobu poste politique la te xam nga politique lu mu laal rek. su ma jumul dem nga ba neexootu leen seen diggante. waa am na moment boo xam ne neexoowuñu parce que man nitu dëgg laa. maa ngi doon fuyewaat samay document ma gis ni 2013 laa ko ni yow dëgg rek laa la nar a wax. la vérité rien que la vérité. bi la fale. te waa bi mu ma falee loolu laa ko wax te noonu laa doxalee waa noonu laa doxalee euh, bon yombul nag pour pour kilifa comme président la république am ci sa wet koo xam ne dafa naan la eh, bi baaxul mais looloo baax pour moom kilifa yi xamuñu lu baax ci ñoom. waa du loolu moo leen féewale. waa surtout. lan nga ko wax lu ko neexul. Ah, man gis nga ñoom ñu ngi ma jëkk a xeex. Hmm. bi eh, ay décision eh, CEDEAO daanoo ci mbirum Karim wàdd ndax dañ ma laaj lii parce que ñoom ñoom dañ ko bañ. waaw di wax waxi souveraineté. ma ne leen lu ngeen ci xalaat ma leen ah Sénégal dafa xaatim CEDEAO la ñuy jël mënuñu ko xaatim ñu ne nii la Sénégal ne man bokkatuma. ay convention nangootuma ah, ay convention ay yooyu kon boog dama daan wax dëgg et puis affaire Karim Wade dafa naaro dafa nekkoon affaire u àq ak yelleefu doomu aadama te man àq ak yelleefu doomu aadama fu mu nekk dama fay wax dëgg waaw bu ñu salfaañee ak yelleef damay réagir. kon da leen ne woon nañ appliquer décision CEDEAO yi ñu bañ. waaw loolu loolu la te nag bon wax naa ko benn yoon waxaat ko di leen koy wax di leen ko dëbbax parce que loolu la noonu la xam nga njiit lan moo ko mën a indil problème ña nekk ci wetam ñu ñu wax les laudateurs entourage entourage bi di la wax ni yow yaa fi dàq yaa fi gën a baax yow yaa fi gën famille yaa fi li daal di lay man man nag dama gis nga bi ma nekkee xale ba tey mm. dama ragal loolu gis nga ku lay jay ku may jay mësuma ko bëgg bi ma nekkee xaleel dama daan bëgg am professeur wala maîtresse boo xam ne surtout professeur au niveau du lycée mm. parce que primaire moom wax naa li ma la wax mm. koo xam ni dafa sévère c'est-à-dire boo defee baaxul mu ne la baaxul ku la dul may dara ku la may dara man loolu mës di bëgg ku la dul may dara boo may nax rek damay xaw dangay bàyyeeku non ku may nax dama lay moytu. ku may nax bi da yóbbu ci bàyyeeku dootoo amati daf may daf may yóbbu ci pax. boo may nax rek ma moytu la. mais boo ñëwee ne ma sa kalam dafa tilim. ah ma dem seetu fomp raxas ba mu set. mais euh, Sénégal ak dëkk yi de façon générale. Mm -hmm. surtout Afrique. li tax démocratie sooke li tax euh, euh, njiit yi li ñu war a def duñu ko def dafa am ñu leen dañu am ay ay nuñ koy wax am na ñoo ñooñu nekk ci wetu ah, non mais ci wolof laa la wax ñooñu nekk dak yi dañuy nekk ci sa wet di di di di biiw comme weñ naan la bul lii naan la eh defal troisième mandat eh, bul dem ay eh, bul lii parce que seen bopp lañu gis suñu bopp euh, intérêt ki ñuy ki tax ñuy wax mm. te suñu intérêt askan wi te loolu moom lu loo xam ni war nañ ko corriger alors sa digganteeg président Macky Sall mbirum Karim Wade moo ko lëjal wala am na leneen lu ñëw ginnaaw loolu parce que yaa ngeeg moom 2013 ba 2016 trois ans waaw xam nga nag booy wax dëgg rek mm. ñu naan kii moom moom moo lakkale xam na dafa soof mm. man leen nag man ah loolu daal laa gisee yëf parce que euh, intérêt national man man man intérêt askan wi moo ma intéressé leneen intéressé man xaalis post intéressé wu intéret intérêt am njëriñ ca ca njëlbeen laa ni man njëriñ dafa am solo ci man hmm? donc euh, di nax askan wi damay koy ma dolli la ci tuuti rek xëy na sax ëpp na mais ku ragal yàlla la parce que dama naan fu nekk yàllaa ngi may xool. dëgg la loolu dama koy faral di dégg ci say wax. waaw parce que ñun bi ñu nekkee justement daara. wala am oustaz bu ñu daan jàngal si suñu oustaz lii. dafa ñu daan wax eh ana yàlla. bu ñu ne ana yàlla ñu ne ko mu nga na moo mu ne waaw d'accord mm. waaye est-ce que xam nga ni yàllaa ngi fii yàllaa ngi fi yàllaa ngi ci seen biir lu ngeen def mu gis ko mm-hmm. kon boog ba di ñu wax ay affaire safara mm-hmm. ajjana naan safara dafa tàng jër taman boo ma tegee ndox mu tàng rek may bëgg a dee <laughs> <laughs> donc yooyu njàngum diine bi dafa def effet ci dafa waaw njàngum man dafa am eh, dafa def eh, lool sax effet effet bu rëy rëy rëy ci man dafa tax ma ma ragal yàlla waaw ñemeew te te bëgguma tooñ man gis nga bu ma tooñee ah dama eh, man sa damay jaaxle sama bopp. parce que dinaa dem ba fexe. ba kooku ma tooñ ma ne ko baal ma. loolu mën naa ko seede ndax mës naa def ak yow émission nga jàpp ne da wax lu ëpp. ngoon gi yëpp da nga maa woo. <laughs> wax naa lu ëpp. <laughs> di lii loolu lu ma mën a seede la ci yow. <laughs> noonu la gis nga gis nga diggante ay nit. Mm. d'abord diggante yi dafa xat. def ba sonal nit. Mm. dafa gaaw. Mm-hmm. mais nit ñi léegi dañ bàyyeeku Hmm. àq dafa sew non seulement ak dafa sew mais léegi nit def ak yu rëy tàng jël ci kaw nit. mel ni defuñu dara. ah mel na defuñu dara. pour tëj chapitre président Macky sàll dem nga ba ki ngay conseiller pour nga gis ko problème la lan moo nekkoon dëgg-dëgg problème seen diggante ak nu ngeen tàqalikoowee. gis nga au début. fu muy tukki daf may woo ñu ànd. dama koy jox ay dossier ma xam ni lire na ko. mais yi affaire ñoom Karim yi bu mu hmm, commencé. ay droits humains ay ah, justice. ci la ma commencé nag euh, di ma xoolee ni Toussigny di xoolee ganaar waaw waaw Toussigny na muy xoolee ganaar noonu la mu mujjoon de xoolee parce que bon je l'ai dérangé je dérangeais je dérangeais. soo ko joxee note du la faale. daan na ko lii sax xam naa ni waaye day mel na ku ko liirul te man yooyu xam nga. Euh, c'est un problème bu la nit ki conseiller bi conseiller bi bu la joxe ay ay ay idée ay note waaye waaye ne gis naa ko mais mais roof mais nga xam ni xel na gis na ko mais roof na ko feneen bëggu laa wax ni gis naa ko lii am na ci laa am na ci man sax loolu du woon sama problème waaw loolu sax du woon tellement sama problème mais xatu xat-xat bi surtout ak ñi ñuy liggéeyandool à la présidence. dafa xewoon. parce que li may wax rek dàkk yi lu ci bari sax ñooy yàq. dañ la tàmbali woon xatal. dañ la xatal. dañ ma xatal ah xatal nañ ma gis nga am na benn bis. Mm. Euh, mu am benn cérémonie à la présidence de la république. ministre de la femme ba fa nekkoon duma tudd parce que tooñ soxlawul sax. indi xawma ñaata car rapide ñu bare xanaa car rapide yi jóge nañu Sénégal ba jóge Mali ak Guinée hmm? ak Côte d'Ivoire dama bëgg wax ni dafa bare woon waaw alors ñu euh, man j'étais ministre conseiller foofu ah. moom mu am euh, cérémonie hmm. donc cérémonie bi am ay gan yu ñëw ay ay ay autorité gouvernement même même responsable ONG yi ñoo nga fa woon les ONG alors man ñoom ñu yéeg ci kaw di nekk ci cérémonie bi man ñu ne may da ngay dem ci sëmbaxloo ba hmm, da ngay ministre conseil sëmbaxloo ba wax wax wax sëmbaxloo ba ma jóge fa dem sama yoon ah fulaak fayda nag mu ngi tudd am sa saw si dibee dama ñibbi bàyyi leen ko fa tooguma fa ak yeneen ak yeneen c'est-à-dire que li ma remarqué woon mooy président Macky Sall dugalul woon ci xelu ñiy liggéey ak moom la qualité des humains la compétence le folklore wi mais pas la compétence te nguur bu ñu bëggee mu réussir xel yuy nàcc ak jëf mooy tax mu réussir mais boo jëlee ñi war a ñi la war xelal ñi la ñi war liggéey liggéey bi nga leen di wan ni yéen du ngeen dara te yàlla seede na yàlla ci boppam nee na yéen dara ngeen mm-hmm. lool day nekk problème ak yeneen yu sew xam nga man am na loo xam ni coow loolu daanaka kenn dégguma ci man bi ma kitee présidence toog naa juróom benn weer yoo xam ne aw ma salaire hmm. waaw nangu nangu wuñu ma fay moom ci boppam yëg na ko euh, parce que xam nga yow yaa ngi nekk ministre am saleeru ministre nekkatoo fa génn nañ la fa mais yow da nga war a continuer lekk ak naan jox sa njaboot ñu lekk ak naan loolu moom lu normal. parce que bañ la falee dafa am ñu la bàyyiloo. c'est ça alors man ma ni loolu man yëngalu xam nga ma yooyu yëngalu ma ni damay dellu université man professeur la jox leen ma këyit buy wane ni yéen fayatu ma comme ça waa université fii ma nekk dellu fa pour jàngale ñu mën ma fay ñu lànk carré hmm? pendant six mois. yéeg wàcc jox leen ma kayit buy wane ni fayatu leen ma université maa ngi fay liggéey ñu fay ma ñu lank carré pendant six mois loolu amul fee duñ fay parce que mënuma am ñaari salaire waaw mënuma am ñaari salaire mais dañu lank carré lank carré man nag sax waxu indiw ma foo woon coow ci mbir yi mais yooyu daal ay affaire foofu daal ay yëf yu sew. d'accord ah moo taxoon wax dëgg yàlla nan lañ la fa génnewee noo noo yëgee ne yow président soxlaatu la. loolu wax naa ci sax plusieurs fois. Hmm. ndax sama ancien étudiant maître Omar Youm. Hmm, hmm. moom moo doon le directeur de cabinet du président. man nag duma la ko nëbb de. man dama doon def li ma war a def su ma waree wax déet dama koy wax ñépp dégg ni déet mm-hmm. comme bu ma leen bindee duñ ma wax ni jot nañ ko duñ ma wax dara man tam bu ma leen bëggee waxee ñoom ma xam fu may mm-hmm. jaar ba wax mm-hmm. xam naa nag lool tamit sonaloon na leen daf leen sonaloon nag lool lool lool mais man dellu université du woon dara ci man ndax xam nañ sax moo ma gën a lool ndax ay junne étudiant di la xaar ngay dugal xam-xam ci seen biir moo ëppoon njariñ alors mu wo woona ma euh, peut-être une ou deux fois di ma wax waa mais dima ma wax ni daal non bu defee nii Oumar Youm moom ak keneen Aziz Tall ñoom ñoo defoon nañ ko hmm. waaye non yooyu mais bon xam nga ñun nañu ay université lañ ndeysaan ak yaa raxma Malick euh, Ndiaye Ndiaye hmm. ñun dëgg rek Malick Ndiaye noonu la woon tamit waaw professeur Malick Ndiaye ndeysaan yal na ko yàlla yërëm di wax naan ma non bu lii man leen la mm-hmm. man dëgg rek laa wax mm-hmm. damay damay damay jàppale sama askan mm-hmm. waaw parce que ak yelleefu doomu aadama duma gis kenn ñu ko koy ñàkkal euh, euh, bañal ba pare duma wax il faut que ma wax alors Umar yu ma fekk na man tout temps bu ma ñëwee nag ma wax la ko bu ma ubbee sama bunt bureau damay séentu daane waa ana lettre bi ñu may bind ne ma waaye génn fi tous les jours d'ailleurs man bindoon naa plusieurs fois lettre de démission mm-hmm. samay euh, samay xarit comme ñoom Rabi mm-hmm. Niang mm-hmm. ne ma du ci dal du ci dal tout le temps ma ki ñu ne ma du ci dal donc man chaque fois bu ma daan ñëw dama daan wax xaaral ma xool suufu bunt bi xanaa dinañ ma bind ne ma jóge fi <laughs> alors benn bis Omar woo ma ci biroom ma xam xel naka la yëfi di demee alors bi ma duggee te ma dugg wax ak moom mu jébbal ma benn kayit sama tànk génnagul biroom téléphone yi commencé kar kar kar dañ may wone ma di ma wax mais ay rajo di ma woo naan ma mais euh, présidence lan moo xew lan moo tax lii lan et cetera donc moom bi may woo woo na presse bi yëpp ne leen dina am lu xew tey mm. <laughs> donc euh, gis nga bi ma génnee maa ngi naan leen nii maa ngi man maa ngi sama oto di ñibbi mais maa ngi nii di dem sama oto pour ñibbi. boobu xoolagoo lim la jox. ci lettre bi. mais lettre de liñ koy waxee de limogeage. mais comme comme c'était comme comme man je m'y attendais. Mm. tous les jours. su ma duggee. damay xëcc daal ne ba hmm. bañ ma ko joxee dama jël rek ñuux sama saak hmm. avancé parce que pour man changement amul woon parce que man nekkatuma foo woon man dama fa toogoon noonu mais nekkatuma foo woon tout dama bind naa ay lettre de démission hmm. yoo xam ne demuñu dañ ma doon wax ni mais la kenn du ko def mais man en fait démissionné woon naa démissionné woon naa depuis longtemps Euh, wax naa euh, nit ñi xam nañ sama attitude mm-hmm. attitude ku démissionné la parce que boo taxawee di wax le président de la république nii ngay doxalee baaxul du yoon te ngay conseiller waaw te c'est que c'est que génnoon naa fa mm-hmm. yàgg na très waaw mm-hmm. balaa boobu nag sampoon nga sa ndënd en lan moo la dugal ci politique lan moo ma dugal ci politique parce que man société civile laa woon yàgg fa nag bi ma amee bi ma nekkee adolescente maanaam am ay seize ans dix-sept ans ci la dugg ci société civile bokk ci li wax les âmes vaillantes ba tey ñu ngi fi sax kër vaillant âme vaillante mooy ñooñ nga xam ne ñu ngi diggante quatorze ans quinze ans seize ans dix-sept mm-hmm. def kuréel di àndandoo di wax wax ju baax di cultiver valeur yi jikko yi rafet yi mm. ak di jëf yàgg naa ci euh, nekkoon association des juristes sénégalaises nekkoon fa AGS ah, nekkoon fa secrétaire général di di di di di jigéen yi ma di di dem ci rajo yi di waxal seen droit mm. seen responsabilité mm-hmm. euh, organisation yu bare bare bare euh, nekk euh, présidente euh, non nekk présidente Rafet waa nekkoon présidente Rafet réseau africain des femmes travailleuses depuis 1995 di liggéey ci société civile bi di liggéey ci ak yelleefu doomu aadama yi di liggéey ci jàmm la paix alors loolu boo koy def askan wi nga koy defal et puis dama ni waa man maa ngi jàngale université maa ngi ci activité yi loolu mooy politique politique bu set waxuma politique bi ñu am tey politique gu yàqante politique gu euh, wax lu dul dëgg et cetera et cetera kon boog man sama candidature prolongement wu la hmm. maanaam la ma daan def avant da dama ko doon continuer rek liggéeyal askan wi jàppale askan wi benn ñaar alors euh, man dama doon xool ah, parce que man damay observer damay xool ma ne waaw candidature bu amee élection yi depuis 1960 ay góor rek ngay gis pourtant jigéen yi mais mën nañu am nañu xam-xam bi am nañu mën-mën bi am nañu jikko yi lu tax ñoom bu candidature amee mm. duñu ca dugg ma nag damay ubbil jigéen ñi bunt bi <laughs> parce que élection am na buntu agrégation waaw ubbil jigéen ñi mm. bunt bi mm-hmm. ndax ñu ñeme parce que jigéen dañu ñemewul woon mm. moo tax ma ñëw ubbi bunt bi damay ñëw rek dajji bunt bi dugg waaw waaw yàggul sax quelques mois rek avant élection yi dama jékki-jékki rek daan ne waaw xaaral il faut que ñu am lu ñu yëngal parce que bu ñu yëngalu dara du départ donc yëngal nañu dugg naa alors sama satisfaction moo di ne jigéen jigéen ñemeegul woon nekk candidate sama sœur maa ngi koy nuyu di ko def kuku ci 8 mars bi Juma Jeng Jaxate après mu ñëw donc ñu Marème Wan Ly pare naa ñëw Marème Wan Ly elle n'a jamais été candidate yeggul dafa arrêté moom à un certain moment dafa mais elle est la première femme bu am un parti politique au Sénégal parrainage et puis donc moom itamit vraiment ñu ngi koy encourager ñu ngi koy féliciter voilà donc la ñu am pour la première fois mhm. ay bulletin de vote yu ñu def pour jigéen mhm. c'était la première fois mhm. bon il fallait le faire li ma ci sama mbégte lan la parce que bi may dem nag yàlla seede na ni man xamagum processus électoral bi sax la ma ca xamoon barewul parce que ma amul benn nit bu ma tegoon ci bureau de vote déedéet pour man ku la xoolal de kenn xoolalu ma kenn xoolalu ma xaw ma sax il fallait mettre euh, quand même euh, ou un représentant lu bari ci xoolal man bunt balaa ubbi waajoo ma dangaa tëb rek bi damay ñëw ubbi bunt bi <laughs> ne jigéen dugg leen bon depuis loolu nag jigéen ñu ngi essayé mais yombul mhm. mais ñeme bi rek nañu ñeme. dina ñëwi. d'accord dina ñeme nañu ñeme dina ñëwi loolu daal laa ci. bëggoon nga bokkaat sottiwul. yow ci spolié yi nga bokk wala bokkoo ci. xam nga man euh, que man liñ ma def gënul metti spolié. ah xam nga lu tax. Mm. man dama wut parrainage mu metti lool nag. jël xaalis bu bare bare bare dugal ca mm. defar caution trente millions am sama caution dem banque bi le vingt le vingt ak le vingt et yi ñuy laaj yëpp pour caution bi ah ma amee ko par quel phénomène duma tooñ kenn kayit yooyu yegguñu euh, au greffe du Conseil constitutionnel bon yeggul lan la je ne sais pas mais toujours est-il que biñ ma ko waxee ne ma kayit yi gisuñu ko ci saa si donc sama mandataire dafa ni greffier bi est-ce que mën nga ñu may kon ci journée bi ñu wuti ñu wut kayit gi man fuye naa fu nekk moom fuyee na fu nekk gisuñu ko après ci lañu dem commissariat central wut certificat de perte commissariat central defal ñu ko ñu daw caisse de dépôt et de consignation pour laaj leen ñu defal ñu benn duplicata benn copie mhm. donc ñoom dañu dem jël seeni dossier gis ni le vingt fayoon na te joxoon nañ ma kayit yi ñu ne ma fayal dix mille francs ñu mën la defal duplicata ñu defal ma duplicata bi ci journée bi ma daw conseil constitutionnel nekkuñu fa ma woo greffier bi maître ba mu ne ma ñoom tey daanaka liggéeyuñu parce que dañu fanaan soog a dem mais euh, ma ne ko de kayit yaa ngi nii mu ne ma kon ñëw leen suba ngeen joxe ko ñu jox ko euh, assistant tout président du conseil ma bind not wax ko li exp wax ko li xew ne ko nañu jàpp na ci jàpp ñu dugal ko ci sama dossier parce que fay naa ko yàgg na depuis le vingt te kayit yi wane nañ ko bon defu ko deful dara dafa ne a ah, indiwuma caution ma ne ko déet bul waxati loolu waaye yooyu tamit bu ko waxati après sax dugal naa recours parce que dafa am ku mu daloon loolu dafa am ku mu daloon Insa Sankhare conseil constitutionnel daan kii mm-hmm. kii gi ñëwagul de waaye fay na kon en gros da si am déception ça a été mal géré okay. conseil constitutionnel mm-hmm. bugguma leen samay nit samay promotionnaire samay xarit ñoo fa nekk waaye ni ñu gérer élection yi baaxul ni ñu ko gérer situation bi ñu ñëw tey nii du ñoom rek de waaye seen loxo nga ca ni ñuy gérer yëf bi mhm. baaxul ma nag dama koy wax dama koy wax parce que il faut que ñu ñuy leeral mbir mhm. man mi en tant que professeur de droit bu décision de justice amee mhm. man dama koy commenter di wax baax na wala bon na bi mm-hmm, yoon nag conseil constitutionnel nee naa leen mm. baaxul d'accord alors amoon nga yéene nekk présidente comme ni nga amee woon yéene en 2012 sa ambition politique say euh, jaar-jaar sa dundin ak sa njaboot dañ ci am seede dañuy dem xooli témoignage wu ku la jege lool euh, bokk ci yow daal di dellusiwaat professeur Amsatou Sow Sidibé <laughs> ñu dem xooli li kenn ci ay mbokkam wax ci moom pour ñu gën ko xam salaamaaleykum man maa ngi tudd Pape Amadou Sow di frère bu euh, am professeur Amsatou Sow Sidibé euh, ñoo bokk ndey ak baay mu féete ma mag euh, ñu ngi màggee diggante plateau nga xam ni sama papa cheminot la ñu dëkkoon cité des chemins de fer bi nekk exactement ci emplacement au Grand Théâtre actuellement ak SICAP nga xam ni bi mu jëlee retraite Eh, fala la bi installé wu eh, kër gaa nga fa ba am eh, Amsatu nag dafa mës a nekk koo xam ni dafa ànd ak détermination bu bu xaw a dëgër bu dëgër toujours été déterminé jaar-jaaram si wàllu jàng daanaka ligne la ko def macha allah ligne droite ba nga xam ni. te e, jeexantal ga e, l'université Panthéon Assas e, décoré na ko ak prix de la thèse de doctorat d'état ba noppi nag jury bi ne woon thèse am foog ñu publier ko ngir askan yi di askanu Sénégal di askanu Afrique di askanu Europe wala Amérique wala Asie mën ko jariñu te noonu la demet actuellement. Tes am macha allah njëriñ la fépp. Euh, am na aussi agrégation nekk titulaire euh, de chair professeur titulaire de chaire de classe exceptionnelle. Euh, alors en même temps si carrière universitaire boobu Amsatou am na un parcours. Euh, bi nga xam ni euh, c'est un parcours à la fois national et international euh, au plan national je pense que ni ñi yàgg nañ ko dégg mais peut-être que au plan international les gens sont moins informés parce que soo demee dëkk bu mel na Tchad moom dañ ko fa décorer chevalier de l'ordre national du Tchad nga dem fu mel na France nekk fa chevalier de la légion d'honneur nga dem Côte d'Ivoire mu bokk ci ñi nga xam ni ñoom la seen loxo dugg ci mbir ba jàmm sax fa tey te te fa dem ba nga xamee ni xeex ba ma nga tar deret di tuuru ci réew moom euh, waxatuma waxatuma ak euh, Casamance moom la fa def ñi nga xam ni ñoo euh, nekkoon euh, ñoo amoon responsabilité kaaraange réew mi xam nañ ko euh, résultat ay jéego yu mag a mag a mag am na ko fa donc au plan politique ginnaaw cheminement boobu li ñu mën a wax mooy yéeneem yëpp si réew mi mooy mën nañ ko tënk ci ñetti baat baat bu jëkk bi di la paix nga ni xam nga nekkoon na professeur euh, et ensuite directrice de l'Institut des droits de l'homme et de bu université de Dakar ak aussi bonne gouvernance maanaam yorin wu sell si alalu réew mi ak si nit <laughs> ñi euh, ñiy xëy di yewoo si biir réew mi doomi réew mi ñu nekk bitim réew ñooñu itam seen àq ak seen yelleef lu ko ñor lu ko mës ñor ba ci ay leader politique yoo xam ne engagement ngir seen àq ak seen yelleef moo taxoon ñu daxee ko présidence de la république jamono yooyu ma nga fa nekk ministre conseiller poñ bi mujj bi si wàllu gis-gisam ak gëm-gëmam Eh, yéeneem si réew mi mooy souveraineté économique maanaam réew mi moom boppam moom boppam si wàllu koom-koom si wàllu politique aussi ba ca wàllu monnaie programme am bu mujj bi eh, yooyu yëpp daf ko ci eh, détaillé ba mu leer nañ donc wàll woowu moo di euh, wàllu politique nga xam ni mënuñu wax am Amsatou te waxuñu wàllu woowu di fàttali rek ni balaa loolu yëpp professeur Amsatou Sow Sidibé amoon na engagement si biir société civile boo xam ni jotoon na def ci société sénégalaise ay jéego yu mag a mag a mag a mag euh, ak rafet ak euh, Euh, si si dëkk bu ne si gox-goxaan yi euh, ci entreprise yi nag amoon jafe-jafe ak seeni liggéeykat euh, ak yeneen ki yeneen ñu ràññee ko nag bu baax si wàllu aussi international sur le plan international alors am na benn défaut nag nit ki mënoo mënoo di wax lu baax nit ku nekk am nga foo xam ni mooy sa point faible man li ma gis daal ni mooy point faible am mooy moo euh, dafa su matteeru bàyyi maanaam détermination am euh, yenn saa yi euh, dafay dafay fort torop dafay fort te loolu mën na ko indil ay jafe-jafe ndax à un moment donné loolu mën na dellusi si si moom ba Eh, indil ko ay jafe-jafe si fonctionnement ci ay acti si ay activité am ba ba ca sax ay ambition waaw loolu daal eh, laa amoon lu may wax si loolu vraiment si biir eh, famille bi am comportement exemplaire la am bu di famille frère et sœur ak famille bu yaatu bi cousine arrière cousin ñëpp ñëpp ñëpp moom daal dafa féete quand même dafa féete yaay ah dafa féete yaay dafa uuf dafa uuf si ñi uuf la bokk ak si ñiy nas waaw kon daal yooyu si tënk laa jàpp su may wax si professeur alors kooku mooy sa frère papa Amadou Sow li mu wax si yow yaakaar naa ne résumé na li ñu fi wax mais nag euh, dañuy ne suñ ne ndax nit baax na laaj ndax mbokk yi ñoo ko wax donc fallait que ñu am seede wu koo xam ne dafay dëggal man lu ma mun a wax si yow ak lu keneen mun a wax si yow muy lu baax yegg si nañu ci cëppaandawul émission bi ndax kenn mënul wax lépp professeur Amsatou sit Sidibé xanaa ñu jeexal ci euh, bëgg nañu xam lan moo la gën a naqadi ci sa àddina lan mooy sa moment bi gën a metti xam nga sama maman bi gën a metti mm. mooy su may gis tey ndax dama xeex pour nit pour àq ak pour jàmm tey bu ma gisee Sénégal ni muy féetewoo mm-hmm. ñu naan jam nañu paaka kii mm-hmm. lakk nañu kii tëj nañu kële tëj nañu ñii dëkk bi jaxasoo ba ñu tiit day metti ci man euh, tey nag réew mi ni mu demee ku ma wax ni bég naa wax naa la la mu gëmul mais yow si sa dund personnel am na lu la gën a metti professeur amul li ma gën a metti sama dund personnel damay sant suñu boroom parce que nit dund dafa ànd ak coono dafa ànd ak metit man boo ma laajee loolu dinaa la wax ni ñu ma bëggoon sumay waajur sama papa alaaji kap sow mm-hmm. sama yaay alaaji eh, sama yaay ajaratu ndey ulay ñu bëgg ma ma bëgg leen yàlla nangu na leen mm-hmm. alhamdulilah rabbi alamin c'est ça la vie c'est ça la vie loolu laa mën a wax <laughs> kër gi nga dëkkoon doon fa yàgg fa lool état ñëw jël ko loolu metti woon na la metti woon na ma waa xam nga lu tax mu metti woon ma mm. euh, bon d'abord dama fa yàggoon gis ne ña dëkkal yëpp état daf leen jaayoon seeni kër université ci boppam professeur yi fa ñu dëkkoon fii wetu kër Macky sàll ak ñoom seen yëpp dañ leen jaayoon seeni kër euh, président Abdoulaye Wade moo ne nañ leen ko jaay. ci loo xam ni jarul dara. xam nga lu tax ñu bañ la jaay. xam nga lu tax coonooy kiy liggéey ci boppam di dugal xam-xam ci bopp nit ñi. Hmm. et puis ormal ko ormal ko man nag ni mu demee woon xam naa ni man yaakaar naa ni tey professeur. Seydi bi nekk euh, ci Covid war na rëy war rëccu li mu demee woon parce que dama ni ko dama ñun dañu bare bagage enseignant yi mm. ay carton ma nekk pendant quinze jours di defar ay carton ma ne ko léegi ma pare carton yi may ma ma yeggale ko rek damay génn moom lañ joxoon kër gi moom la ñu affecté woon kër ga mujj fa sax dëkk ma ni ko may ma fii ak week bi c'était vendredi je crois mu daal indi presse bi indi waa waa kii e, waa e, kiiw L'Obs te dafa ni ma 15 heures dinaa indi TFM ma ni ko déet waaye bul def lu ñaaw waay. mu ne nanga génn rek. naa génn ma ni ko pare naa yaa ngi gis ma ni ko nit ñaa ngi mu indil ma maître El Hadj Diouf. avocat waaw kooku indi clerc ma ni leen ma ni ko mais yow gisuloo carton yi may ni ñu bare carton yi camion rek leen di yóbbu ma dem. alors euh, loolu moom naqadi woon na ma waaw naqadi woon na ma parce que je me dis que mérité ko waaw jàngale sonal sama réew man dama sonal sama réew ñu génne sa ay bagages non génnewuñu ko mais dañ ma bind ci presse bi hmm, taxawu la boole taxawu ma ne ma génnal man leen waay déet waay man man sonal naa sama askan waay xanaa du kër moo tax ngeen di may bëgg def nii mais nag comme nee naa la man sama frère bi wax na ko dama dëgër bopp de dëgër ne digg ja yo man li li li liy yàq sama der du loolu man wax lu dul dëgg mm. moo ma mën a gaañ voilà jëf lu bon moo ma mën a gaañ mais loolu dama dama koy ëf mu naaw <laughs> bi mu ko defee moom ma déménager déménager naa bon sant yàlla sant yàlla yooyu ay péripéties la dama ko regretter nag mm. parce que ay collègues lañu mm. waruma woon a def loolu politique amul woon ci loolu ah je pas peut-être bu ci amee nag gis nga li ma tax ma seexlu politique mm, moom dëkku fa mujj fa dëkk feneen la dëkk taxawu nañ la ba nga génn génn ma sant yàlla alhamdulilah jërëjëf yàlla <laughs> yàlla bare na sutura sutura ci alhamdulilah jooj la ñuy jeexalee professeur waaw amoon naa mbégte dalal la xam naa dina am yeneen jotaay ndax li ñu war a wax ak yow mais mais mais bonne fête des wow, femmes waaw waaw ñu anticiper ci mars bi ñu ngi lay sargal bu baax waaw ma sargal leen mm. sargal bu baax mm, baax a baax mm, di ñaan nag waay waay na ñëpp góor waay. ci jigéen ñi ci jigéen mais na góor góorgóorlu senegaal jàmm mm-hmm. am fii. soxla nañu ko man man ñëpp laa wax nañ dugal seen loxo. Mm-hmm. bu kenn bàyyi parce que bu ñu xamoon dëkk bu yëngatu yenn yëngatu yi réccu bi mooy mën a bare nga bëgg dellu si wàcce na nga bëggoon mm-hmm. mu tëla kon boog nañ def rek ba mu baax. jërëjëf yàlla na lépp baax professeur Amsatou Sow Sidibé ñu ngi lay gërëm. maa ngi amoon mbégte lool dalal la ci la voie du succès yoonu ndam dellu si waat sa jaar jaar. en tant que première femme agrégée en sciences juridiques et politiques ci Sénégal nga nekk itam jigéen bi njëkk a samp ndëndëm ci élection présidentielle ñuy door mars bi ak yow di wone jaar jaar yu am solo surtout yi jigéen ñi am jërëjëf. jërëjëf gërëm bu baax Fatou jërëjëf yow moom dañ lay ñaanal yow parce que da nga ci ànd ak yiw ak professionnalisme mm. yal na la yàlla may kattan ah ba nga gën a avancer encore une fois jërëjëf professeur Amsatou Sow ba ñu ngi leen di gërëm yéen ñu ñu deen teewlu ak ñu nekkoon ci équipe technique bi yëpp di leen dig daje beneen ayu bës incha allah waxtaan ak keneen ci leneen jaar-jaar yu am solo yëpp daan leen ko indil jaa ngeen jëf